mi ngi gën a compliqué ci waa Pastef fii lee ak arrestation euh, bu Fadilou Keïta euh, mi nga xamante ni nag euh, ca Pastef la daal di nag bokk comme ni ñu ko waxee bu yàggul dara moom Fadilou Keïta bu Pastef dañ ko jàpp membre bu cabinet bu Ousmane Sonko ñu daal di koy interpellé ginnaaw benn post boo xam ne daf ko def via page Facebook am wax ci disparition homme de tenue yi nga xamante ni mooy Gilbert Fulbert Sagna ak Didier Badji Euh, moom nag lañ koy reproché mooy dafa def ay accusations yu garaaw euh, contre état bu Sénégal ci mbir moomu le euh, janoog taskatu xibaar yi ñoom waa Pastef rawatina basiru Diomaye fay nekk responsable bu Pastef nekkoon porte-parole du jour daal di nag tiré ci régime en place bi le muy régime bu président Macky Sall nee na nag dañu daal di jàpp sunu frère Fadilou Keita coordonnateur bu Nemmeeku Tour mi nga xamante ni nag moo nekk jamono ji di tere nelaw camp bu pouvoir bile euh, pour simple motif benn publication sur Facebook da euh, mun ngeen sax euh, daal di nag gis li nga xam ne moom mooy post bi ci nag suuf ci post bi nag mu daal di daanaka ñu convoqué ko il y a une semaine de cela puis ñu daal di koy nag relâché waat dañu foogoon nekk ne jeex na sax mais puisque daanaka nag mu mujj ñu daal di jot lenn démb ak yi nga xam dañ ko daal di camoufler te euh, jot ko muy confrontation Sonko aji Sarr ñu rabaat ko euh, euh, léegi ci entourage bu Ousmane Sonko ndax keroog confrontation bi foogoon nañu xëy na Sonko du génn ñibbi këram waaye comme musu amuñu fa dara loo xam ne ci ay yu convaincant la ngir mën a daal di jàpp Ousmane Sonko ñuy daal di nag nekk di ante ñi nga xamante ni ñoo daal di nag fare Euh, ñi nga xamante ni ñoo daal di nag euh, fare ci entourage am euh, Fadilou ak Suzanne moom nag lan la moom Fadilou Keita daal di wax lu gën a garaaw li Ahmed Suzanne Camara daal di nag wax ca plateau bu Sen TV moom mi nga xam ne dafa libre ci ay mouvement mu ne Didier Badji ak Fulbert Sambou ñoom ñaar ñëpp dañ leen daal di rey te dañ leen daal di nag naqaloo maanaam ñoo leen daal di nag naqaloo si ndox mi ba ñu daal di nag Euh, euh, lab fa euh, ndax nag jotuñu benn convocation boobu ba léegi moom Ahmed Suzanne Camara jotul benn convocation fajulu waxulu garaawee noonu moom benn opinion la daal di émettre te dañu nekk ci benn dëkk boo xam ne c'est démocratique te dañu war a libre ci wax nag lépp loo xam ne moom moo nekk suñu xel rawatina nag ci ni réew mi di a doxe ak événement yi ni muy demee Pastef nag am na lu ñuy exiger ndax nee bu fekk nee nañ bu fekk fekkante ne li mu wax c'est aussi grave que ça euh, jàpp nañ ko le jour même euh, te bu fekkente ne nag déglu woon nañu ko euh, daanaka xamoon nañu ne amuñu dara contre lui et que nag du nañ ko bàyyi mu ñibbi waaye camouflé démb bi moom moo tax ñu daal di revenir à la charge la ñuy demander mooy libération immédiate am et sans condition au même titre que libération ñëpp ñi nga xam ne ay otage politique lañu ndax nag fi ñu toll nii nag daanaka duñ ci bañati dara j'espère juste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 yaa xam koor gi tabaski bi actualité ak yi xew ci jamono ñu koy nëbb maa koy génne teg ko ci de table DKR 221 di ko tas benn par benn naan 2 de 1 boo ko boolee mu jox la 221 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire yi tey ngeen dee marié yi am ngeen lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax de eh DKR 221 abonné